moy bama ki ñëwee États-Unis bokku na ci ñu ko doon diaboliser moy loué ben camion def ci ay nit ñu dé peinture ko fi def ci ay xam nga ay dret pour wala ni ñi ñëpp Macky Sall mo ray quoi tu vois je pense que di ngeen yéen nga rappelé wu lolu quoi bokku na ci ñu bokkal mom ak ay Tunkara voilà donc mom lañ japp États-Unis xam nga mu doon violé ben femme am 35 ans mom lañ mom lañ japp ni voilà motax aduna lo gis ak baaxu limu doon wax rek Macky Sall ñëpp ñuko ko ak Macky Sall mu ngi leen dal ben par ben Wow.

mu ngi noonu ñoo ko déggandoo moom nag na bi Macky ñëwee foofu ca bokkoon na si ñu ko moom nag lañ jàpp mu doon violé am jigéen foofu mu nekk nag daal nañ koy teg loxo te ki nga xamante ne ki ko def du kenn ku dul ki bokk ci parti Pastef. Hmm. d'abord. liñ koy ki lan laa ko war parce que viol c'est c'est c'est c'est une crime viol crime la violer une femme Ils ne donnent pas de valeur aux femmes lu ñu les femmes même dans leur partage vous voyez la minorité c'est très flagrant yaa doon diaboliser Macky Sall bu mu fa ñëwee tuumaal ko te yàlla teg na la tuuma Macky Sall set na setut kenn téyegu ko waaye yow jàpp nañ la ci viol ton nom est sale à jamais te ma sa setati ku la gis xam na ne am na soxna ku la gis xam na ne am na njaboot tey looy wax sa njaboot gis nga dans la vie nee na leen am na ñoo xam ne kenn du leen tooñ que muy Macky que muy Abdou que muy Samba que muy Paate am ñoo xam ne yàlla dale manam dañoo sat seen yaay da leen jur ñu sat seen yaay jox leen ñu sat ba ñu màgg ñu jox seen yaay lu sat nee naa leen ko am ñaanu waajur ak yaayam ñaanal ces genre de personnes il faut être très très très très très très très très attentif ci seeni mbir et Macky Sall en fait partie nañ arrêté tuumalante bi yow nag sagam viol nga def te fi nga ko defee moom ñun xam nañu ñooñu seen justice du suñu justice yow tu n'auras pas l'occasion de dire que wóoluwuma justice bi yow occasion bi nga ki nga àndal occasion bi mu amoon ne wóoluwul justice bi ne demut yow tu auras pas cette occasion tu vas purger ta parce que ñooñu ñu jigéen fooyewuñu lu jëm ci viol dix ans yi moom maximum bu dee viol bi am na na la leer na di nga ko def ak ak leneen la travaux nañ la teg travaux parce que nañ la teg lu ne parce que vous le méritez quand une femme dit non c'est non ku muy jëkkër ku muy copain quand on dit non c'est non tubaab ñaari yi la xam oui non elle a dit oui oui elle a dit non c'est non quand une femme dit non c'est non amul négociation amul demi-mesure bu demoon bu futteeku taxaw sa kanam quand elle dit non c'est non quel que soit sa degré bi nga on s'en fout nous quand c'est non c'est non tout loolu la xam Kinga nga ci baar sa yóbbu ko ba ci néeg fay ko quand il elle te dit non il se xaalis c'est non non c'est non oui c'est oui viol viol la amul sa demal maa ngi ce genre de personnes ne méritent pas de rouler, de vivre en liberté. Ce sont des salauds. Tu es accusé de viol. Tu na accusé de fi nga c'est important ce qui est important c'est que tu as commis un crime crime bi assumé. assumé dañ leen a ràpp ci kaso gi parce que une femme on doit la respecter et quand on dit non c'est non foo ngeen dugal ko seen bopp.